mbokki Sénégal bu biir réew mi ak bu bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi dellu si waxtaan ak yéen ci lu am solo ñuy dëgmal muy élection législative laata ñu ciy sori ñu ngi ma masawu bépp sénégalais bo xam ne yaa ngi dund jafe-jafe di la gaaral ni nguur gi dina taxaw sawet wet mbokk yi juróom benn weer ci gannaaw tànn ngeen président Bassirou Diomaye fay ci kóolute gu mat sëkk dénk ko réew mi juróom benn weer yoo xam ne doxal na ngeen gis ci anam goo xam ne saytu nañu réew mi ci nuñ ko yoroon ak yàqu-yàqu ci ne ba pare taxaw a yéen wax leen dëgg gi loolu nag bu assemblée nationale baaxoon bu defoon liggéeyam lu bëri ci li am ba indi réew mi ci guuta du loolu du amee noonu ci juróom benn weer yoo xam ne tëggaat nañu programme bi ba keroog présenté leen lañ ko muy référentiel bi nga xam ne ci ñaar fukki at ak juróom yi di ñëw ci ni ñu bëgg a doxalee Sénégal wax nañ ci lu leer ngeen gis ci seen bopp loolu it pour ñu mën ko doxal ni ñu bëggee laaj na ñu am lengay biir assemblée nationale ba li ñu war a wote ci ay loi ñu mën ko wote laaj na ñu am lengay assemblée nationale ba képp ku war a layoo ak askan wi ci la waroon jëm ci njëriñu réew mi nga jaarale ko feneen ñu mën koo doxal ni ngeen ko bëggee ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne solo su rëy la ci assemblée nationale kon li ñu mën lu am solo la ñun nag Pastef ku ñu xam-xam ni dañoo jëw ñëw ci politique ci teg lépp ci xalaat ak xam-xam ak proposition te noonu lañ koy doxalee ci campagne bi wër Sénégal ci huit pole yi nga xam ne mooy pôle de développement yi nekk ci biir programme bi fu ne dinañ ñëw jukkil leen foofa lañ fa bëgg a def ak naka lañ koy defee di ñaan mobilisation sénégalais yépp ndax élection bi am na solo élection bi mooy doon tournant bi nga xam ne lañu ñu war a def ci mandat bi ak mandat yi tegu ñu mën a am doole guñ ko defee gannaaw bi ngeen ñu dénkee présidence de la république ak gouvernement ñu bëgg nag sénégalais yi xam nañ ni yeewu ngeen te kenn mënatu leen nax politique du xasante du saagante nun de kenn mosuñoo xam ci loolu gannaaw buñ ñu pexelee ba bëgg ñoo faagagal lañu aar suñu bopp waaye bi ñu duggee ci politique ay argument la ñu andi politique munoo ko lal ci noone ak nit ak ci mbañeel ak nit ndax yàlla may na ko lu mu la mayul ci politique politique programme la ak ñëw ne sénégalais yi fii laa leen bëgg a jëmale ñuy ñaan sénégalais yëpp nañu ràññetle ci ñuy ñëw gis leen ndax dañ leen di wax ñoom seen gis-gis ci réew mi ak naka lañ koy doxalee wala dañ fay nekk tudd turu nit suba ngoon jàpp ni loo loolu mën na saafara problème sénégalais yi lii mooy solos campagne bi ñu jëm ñuy woo sénégalais yëpp ñu def ko ci tey ak ci dal yàlla jàppale ñu asalaamaaleykum